moy crédibilité bi compétition coupe d'Afrique bi am visibilité bi et tout équipe bu mel au Sénégal nga jëlee ko ni ci compétition bi grâce erreur arbitrage yu bari yu am ci match bi loolu waa CAF war nañ ci réagir CAF doit agir très vite sax pour lijjanti situation bi sanctionner arbitre parce que li te buñ ci jénnee war nañ ci jàng formé waat seen arbitre yi à chaque coupe d'Afrique scandale dina am ci euh, ci arbitre Euh, Coupe d'Afrique bi passé amoon na ren jii tamit amaan na ci match Sénégal bi loolu noonu war nañ ci jën bàyyi suñu xel bu baax a baax surtout kaaf euh, donc président bi muy euh, Patrice Motsepe donc war na ci jëlee décision donc mi ngi noonu en tout cas ñoo leen seen xalaat ni ñu ko gisee ñi nga xam ne ñoom jafe-jafe seen wàllu néegu sëy ñi bëgg bayra góor muy góor wala jigéen woo leen Serigne Mouhamed Diakhaté 78 282 44 donc jaa ngi